Charles Faye. c'est le cadet de nous. <laughs> non man Sénégalais leneen lay xaar loolu ma jóg di toll ci waxtaan. maintenant nag y a une réalité boo xamante ne moo fi ne c'est-à-dire tey la réalité politique vraie mooy Ousmane Sonko Idrissa Seck. positionnement pour 2024 parce que faaw ko ñoom ñaar ñu daje wala ñu def face pour la présidentielle c'est ça la nouvelle réalité ban nag ban APR ak kan nga xamante ne mooy mbubboo nekk le joker la l'APR kooku mooy le problème xëy na du président Macky Sall et loolu daf ñuy toucher parce que dina impacter ci suñu politique dina xëy na impacter aussi ci suñu confiance macroéconomie ak yu demee noonu loolu mun na am bu fekkente ne dem na ba di war a jot ay instabilité mun na créer ay problème instabilité politique au sein de la l'APR defe naa loolu mooy la nouvelle bonne politique <coughs> nit ñi xëy na bëgguñu si avancer mais c'est ça la réalité gis nañ fi koo xamante ne mu ngi bouger commencé di attaquer 2024 muy Ousmane Sonko te il va y aller à fond keneen koo xamante ne mu ngi ne teg ba teg woon ko yoon muy Idrissa et le président Macky Sall comme on l'a comme kii lu mu ko waxee Birima ak euh, ak Cheikh Yérim mooy que c'est fini donc. Euh, et c'est fini maa ngi wax donc y' a un problème de. mais comme maa ngi wax là. mais mais non tu te non je rectifie. c'est ça non non loolu nga wax. non non non damay rectifier. non non non may ma may ma donc je rectifie. non non non non waaye wax nañ daal la première fois ma gis. ñu ni ma waaf. wala on waaf. waaf ak bañ loo moo ko attention man du ma dëkk ma nekk en face d'un grand opposant de Macky Sall grand partisan de Macky Sall muy wax ay du ma bëgg a utiliser pour ses propres intérêt mais nangu loolu lui il est l'adversaire numéro un de Macky Sall parce que partisan de Macky Sall man affaire premier ministre ba dernier ministre. mais tu as leen dugal sa bopp. yaa ngi dugal dara. Eh, eh, man li ma wax. non je rectifie. voilà Charles rectifie. dama nga baal ma ah. ah j'ai pas bien compris parce que sur suma gis-gis mooy que compréhension. mooy effectivement. dama laaj boobu lu mun a wut. déglu naa la baal ma baal ma. c'est tellement opposant que dama déglu. dama déglu baal ma ah rek damaa juum man damaa foog ne que Macky Sall def na ñaar jeex na mais léegi l'éventualité du mandat étant. tout ça je waxuma ci. mais je t'ai dit je t'ai pas dit il est candidat la parole je t'ai pas dit la parole. attends attends Cheikh Yérim Bouba d'abord. waaw mais non mais non mais mun naa vas-y Bouba mais en fait xam nga naan euh, wàcc. baanu moo ci gën a gaaw nañ attaqué affaire bi. Cissé Lo moom man la ma ca ba ngeen ma laajee laa def su ko loolu bu ko bu ko président Macky Sall di gis loolu man man sama yoon na aussi. <laughs> Cheikh Yérim dafa am fu mu génnoon loolu moo waral tooyaayam fii nan dem ci foofu. waaw waaw xam naa moo gën a am guddeel bi affaire yooyu. parce que. dans ce que damay jégal ma parce que ñu woon ay ay naan waa Cissé Lo président wax na ko Cissé Lo président gis naa Cissé Lo jot na ko téléphone. loolu ñun suñu yoon la. génn loolu Cheikh Yérim dafa wax. fi génn def ay déclaration mu def tole coono coono jib lenn rek moom moo ma jaaxal moom mooy dafa am tuuti benn contradiction su ce que Cheikh Yérim vient de dire parce que tout simplement boo demee bay def sorte yooyu mooy que dans ta yow déjà tu es sur le prochain mandat parce que yaa ngi déjà tudd ay tour ay potentiel successeur du président Macky Sall mooy déjà yow tu dans la peau de de quelqu'un boo xam ne mu ngi xaar kan mooy remplacer Macky Sall te munoo munoo yow convoqué loolu ba pare bëgg a wax que ni président Macky Sall du ci wax comprendre nga. Mm. parce que aujourd'hui le le le le prochain mandat bii mu nekk président Macky Sall présenté wu. Mm. def troisième mandat wala mu bañ a présenté wu kenn mënul fexe ba du nekk débat parce que normalement en principe. bu ñu jógee 2024 lii waratu nekk débat parce que dafa war a confirmer loo xam ne c'est un acquis maintenant normalement en principe donc kenn mënul dàq le fait que du ñu wax kan mooy succéder euh, au président Macky Sall ak kan mooy ko dul fi succéder kan qui sont les les hommes yi nga xam ne ñoo ko wër parce que boo boo seetee gars yi dañuy bëgg jël ñi ñi man mii tey jii bu ma newoon président ñi ma wër. man bi ñëw seen xel da ciy nekk kenn mënu leen tere pour ñu ñu tënk kii bi damay jéem a forcer benn pour ñu bi parce que semaine dernière gars yi d' accord ñu ak ak li yërim génn ñu ne fii di wër ay Cissé Lo ay affaire yooyu. tey damay wax benn affaire bu man. waaw d' accord rek dañu war a dem ci laa bëgg a doon dafa nekk ci rôle am. waaw. Macky Sall président ñu jël réew mi jox ko ko maanaam ñu jël bato boo xam ne suñuy pañeek suñuy ëmb ak yépp ngi ci biir jox ko ko mu war ko yóbbu donc man li ma préoccupé préoccupé ko moom man quand je dis que Macky warul nekk ci problématique gu mandat c'est parce que responsabilité yi ñu yor la man nag en tant que journaliste dafa am exercice yoo xam ne faaw ma def ko xam nga keroog maa ngi dégg benn waay toog fii nii waa ji mu ngi xalaat li nekk ci bopp Macky Sall kooku xamul dara ci journalisme. boo xoolee li ñu bind dans la tête de Mitterrand man bi ma nekkee Jeune Afrique bind naa dans la tête de Abdoulaye Wade dans la tête de Déby la tête de mais un million fois livre politique yi ëpp doole ci àdduna bi dans la tête la ma tudd. maanaam nga toog gis nga comme je suis désolé il peut penser que nettali sa géntu morom. la tête de exercice journalistique la. je sais je peux dire pour nga toog Sénégalais nettali nga wax expliquer Sénégalais nag loolu. journalisme d'investigation la hmm. maanaam nga toog jàkkaarloog Macky Sall nga toog nga ni lan la Macky Sall di xalaat hmm. li Macky di xalaat du dugg ci bopp maa ngi dégg biram këram Abdoulaye euh, Macky Sall waxu ko ko mais mosuma wax ne Macky Sall moo ma ko wax hmm. man Macky Sall li may wax du ma ko wax xalaatuma ko ci àdduna mais problème bi mooy nit chaque jour nga gis benn sujet par exemple un homme politique toog nga xool ni ko wër nga xool ñi muy waxal nga xool acte yi muy posé nga xool yenn information ci li muy teg nga mën cee jàng lu bari t'as pas besoin de nett gént loolu du nettali gént loolu xam-xam la boo xam ne investigation journalistique la tudd tu comprends ci loolu laa basé di recouper di recouper di recouper ba gis ñoo xam ni man wóor na ma ne Macky Sall yéene na leen par contre nag am na loo xam ne du ko def wax benn affaire ba pare di ko commentaire noonu du ma ko def nag mais par contre j'accepte parfaitement que ma wax benn affaire nit ñi am ci opinion xam nga ndax buura c'est-à-dire loolu je je l'accepte xam nga nit aussi mënoo nekk di gérer enjeu yu lourd comme man yi may gérer di wax yi may wax di dugg ci yenn affaires yi te nit ñi duñu réagir c'est-à-dire man j'accepte parfaitement ku nekk am na affaire man même Malal keroog mi ngi interprété nii li ma metti mooy dama demal ci débat bi moo tax. ma ñëw def non non Malal wax na ko. si man ma ko wax. wax wax ko prolongé. man ma ko wax. xoolal Birima kooku man j'accepte parfaitement xam nga man je vais t'expliquer une dama lay wax man lan moom ma ci boole. man au fait du ma journaliste. maa ngi dégg Malal keroog naan Cheikh Yérim Seck dafa bëgg. taxawee comme journaliste bi gën a rëy ci Sénégal bëgguma loolu ça ne m'intéresse pas. non j'ai jamais dit ça. non li nga waxee loolu laa ko jàngee quand même réitérer. waaw non li ma li ma comprendre. non non man léegi noonu. loolu ma comprendre mooy. waxuma loolu. mais loolu ma dafa baal ma baal ma maanaam li ma. ma ko jàngee maa ngi dégg. maanaam bu fekkee ne ngeen ko ah loolu la ko jàngee. ma ko jàngee li ma jàngate daal mooy. dafa ne du commentaire. parce que daanaka il ne commente pas. maanaam dafa la ko jàngee loolu li ma ko comprendre. su ko ma fekk toujours la. c'est ça. voilà quand même rendre mais. d'accord d'accord. léegi maanaam bu fekkee ni bu ah, fekkee ni bu fekkee ne waxoo ko noonu garaaw amul problème man définiruma sam bopp pour journaliste mm. parce que su ma bëggoon journaliste mm. bi ma amee bac damay dem defi deux ans nekk journaliste man dama def maîtrise du droit université Saint-Louis dem def DEA Paris 10 xam nga ma man ñaari affaire laa bëgg doon ci àdduna bi ñaari affaire ñaari affaire rek ku sàggan laa ku bari bàkkaar laa mais jullit laa bëgg a doon beneen bi ci topp mooy intellectuel laa bëgg a doon dans la définition première du mot intellectuel c'est-à-dire quelqu'un qui se mêle de ce qu'il ne wolof wolof maanaam maa bëgg ni nit koo xam ne nii société bu muy dund dafay dugg sax ci li nga xam ne nii yoonam newu ci mais li mu ciy jublu mooy defar xam nga li ma bëgg a wax man loolu laa loolu mooy sama def maanaam bëgguma sama défi du nekk journaliste bu gën a siiw ci Sénégal déedéet. mais chef li ma bëgg non c'est important dañuy waxtaan. xam nga bu bëggee wax dëgg la. mais boo bëggee waxtaan koy teg da koy teg da koy teg ci xoolal mm-hmm. Mm-hmm. nous mm-hmm. ni Bouba wax. mooy effectivement wax nga ay tur. man par exemple ce qui m'interpelle mooy ñi nga waxul. te ñu xam ni ñu wa ñu légitime la bëgg. ñu wax ko wala ñu bañ ko wax wala nit ñaa ngi koy wax. Amadou Ba. Mimi Touré. Aly Ngouille Ndiaye foo leen def. ak ñeneen. am na solo ak ñeneen bien sûr là là je ne suis pas. exhaustif c'est ça.